wax moom xam nga xale mais gis nga saa si ñu ne ma boo yaayam ñëw boo yaayam rek dana ko mën a yóbbu yaayam rek moo a wax ak moom ah lii moom c'est la première fois yaa gën a jàpp jinne jinne xale jàpp waaye parce que lii dafa grave xëy na xam nga moom mooy caatu kër gi fi mu ne nii. waaw moom mooy caatu kër gi. mooy caatu kër gi. waaw kooku liir la. waaw kooku papaam laay laaj turam la ak yaay. moom liir la. ah yaay moo ko doon nital. waaw nee na bu ñu ñëwee jàll la mais da doon daw ngay génn mu naan ajal leen ma. nee na gisatul nag doom ji tànk bi la ko doon. gis nga li may yàgg ko nitam xam fi muy jaar. lu jënd lu mu ndaw ndaw. garaaw. macha allah dimbali bi mu yëkkati ñu jëmbal bi am na ay jinne nekk di xas-xasal ndeysaan alhamdulilah rabbil alamin lank eh, rek parce que jinne bu génne sa tànk day xaw a métti su ñu génne parce que sa sidit day bàyyi après day métti mais rek bu toogee mu nekk kàttan macha allah bu ko jigéen bu dal la tey am wërsëg dina foog ñu dugg la indi la ay kooku kàmpa si ngeen léegi nag moom jinne yëpp defe naa jeex nañ tàkk nag moom jeexal na moom jeexal na tàkk ndeysaan bu ndax moo nekkoon jinne bu am doole jinne bi dafa dënd bi dafa toll ni aduna ba ma koy génnee dafa kale fii ma téye ko fi muy suuru may xeex jinne bi dafa moom baatin ba jinne bi sew ma mun ko génnee ci moom xam na loolu xam-xam la jinne bi ala nee na ma ceer dama bëgg a génn waaye damaa kale damaa can sama dënn bi nu mu toll lu ma génn noonu ma ne ko ok c'est bon def suma baatin def suma ba jinne bi ba mu ba mu a jaar ci tànk bi génn léegi jinne baa la ba loolu xam-xam la suñu borom moom mën a maye waaw macha allah bismillah ñoom ci yeneen yi ñu ne salaamaaleykum jinna salaamaaleykum jinna salaamaaleykum jinna salaamaaleykum jinna foofoolu amoon yow xel naa nge inna allaha ana allaha andi baati basiran jinna mu ne ko bi tulote talate ke allah kanta annabi kanta ley utit yo utit hakkunde nden ki ɗon ko jinna ọlọ́kọ̀ bíi tòlótẹ̀kẹ̀ tàlátẹ̀kẹ̀ alákàtà kiti saya pola ya saya wala dala sabu Allah kulu Allah sama alfa alfa mawati kuma suci kabule koroya nabi yalla nabi dure dure te suci kenn moomu la jinne borom doole laa mu ne suuf laa mu ne suuf laa mu ne suuf Aliou Sow Mamadou Aliou Sow ceinture zaamu la xol Mamadou Aliou Sow ceinture zaamu la xol zaamu la xol zaamu la xol zaamu la xol Mamadou Aliou Sow ceinture zaamu la xol entier waxuma la Sénégal ci àdduna bi y a personne qui fait ça c'est moi seul qui fait ça kon mais un peu bruit c'est bon voilà Mamadou Aliou Sow ba tey moom seen tiré kooku moo nekk troisième ambassade d'Iblis Aouda Chakir kooku laa xeexle wu ñu kaa ko métti maa ci ne ba mu daaneel ma ci suuf ma wëlbati ci kawam duma ko dumay métti ba mu ne ma Thierno yoo am na loo àndal kooku laa ko wax mu seere ko parce que kooku dafa am doole xam nga kooku keroog xeex bu laa xeex moom fii kooku kooku moo nekkoon Ahouda Shakir moo nekkoon troisième ambassadeur Iblis borom doole bi la moom laa nekk seen tigé parce que kii ku am doole la xamaguñu kan la mais dafa doole parce que gis nga dafa doon bañ jinne dafa doon bañ mais gis nga ñu ko ëpp ma wax France bis bu ma la keppee bu ma la jàppee waaw parce mais bis bu ma la jàppee du doy ba pare mu wax moom la kan gis nga li ma wax ñu def ko xam nga ne lii gis nga ñu ko def jinne dafa dégg ndigal loo ko wax ma def rawatina man dañ maa déggal ma si kii yow la kan na wax na wax na wax moom la kan yéen boloka leen foofu yéen téye ko bàyyi xoj ko dinañ xoj ko bàyyi xoj ko ñu wax mais sentinelle téye foofu bàyyi xoj ko waxal yow la kan yow la ah? looy def ci kii sirigi keroog du moom leen génne woon sirigi yow lan ngay demaat fi maa nax noo ma nax ne ndox maa nax gis nga jinne yi ne ndox maa tey loolu dama bëgg ñu toroxal ko ñu torturé ko ñu def ko lu bon jéem a ajaratu Mariama Camara ma pour bi teel ma pour bi teel ma pour bi yow ajaratu Mariama Camara teel ma pour bi pour bi ngay téye dina nooy fu mu nooy kii dama ko bëgg a teg mu nooy teel ma pour bi mu nooy ajaratu Mariama Camara Mouhamadou Moustapha gémmiñ gi ngay ubbi ma gémmiñ gi gémmiñ gi na ubbeeku xëccal gémmiñ gi ubbeeku xëccal ma gémmiñ gi ubbeeku ajaratu na écarté na ubbeeku na ubbeeku na na ubbeeku na na ubbeeku teel ma pour Kamara teel pour bi Mouhamadou Moustapha ñaayal ma gémmiñ gi ñaayal ma gémmiñ gi ñaayal ma gémmiñ gi ñaari mag yi mbir mi téye ko pour ñaari mag yi mbir mi téye ko pour ñaari mag yi mbir mi xar gémmi melal na xar gémmi melal na xar gémmi melal na xar gémmi melal na xar gémmi sentirel foofu sentirel foofu melal ni luy xar gémmi gi melal ni luy séparé wu gémmi gi yow teel ma put bi ajaratu Mariama Kamara teel ma put bi Mouhamadul Moustapha melal ni luy xar gémme gi ŋaayil gémme mën a yuux ŋaayil gémme gi melal ni luy séparé luy désiré gémme gi Mouhamadul Moustapha jaayal doole gémme gi melal ni lu koy xar bu ko xar nag lu xar mais melal ni luy xar ba mu sës yow téel ma put bi ajaratu Mariama Kamara put bi nga may téyel bu mu nooy yow xara melal luy xar gémmiñ gi yow troisième ambassadeur Iblis euh, Mamadou Aliou Sow séentiré ko mu bañ a yëngu ñetti borom doole laa ko boole fu mu nekk nii yow maasal tànk yi maasal ma tànk yi dañ teg lu métti maasal ma tànki kuura yow da nga jënd ji naan maasal kuura maasal dama bëgg kii ñu torturé ko ñu def ko lu bon parce que kii nekk kàccoor la dama bëgg ñu humilier ko ngaay ma jëm melal ne luy désiré gémmiñ luy xaar xëccal ñaari xëccal melal ñu séparé gémmiñ téel ko mu nooy ma tànk laa suuf mu laa suuf waaw dama bëgg ñu torturé ko def ko lu métti ngaay ma jëm ngaay ngaay xëccal tànk mu laa suuf ngaaya seere seere huda shakir huda shakir seetire huda shakir seetire bulda ko mule bulda ko masal ka tanki kuura masal tanki kuura bokk yi gis ngeen jinne bi <laughs> maa ko maa ko gën a dof tanki mu laal suuf maasal ma tànk yi maasal ma tànk yi maasal ma tànk yi duma laal suuf maasal ma tànk yi kóora kóora kóora maasal ma tànk yi maasal ma tànk

courant bu góor bi xam nga courant am na góor am na jigéen courant bu góor bi cher cher maas cher Mamadou Aliou Sow Mamadou Aliou Sow seetlu ko Mamadou Aliou Sow seetlu ko Mamadou Aliou Sow seetlu ko Mamadou Aliou Sow seetlu ko Mamadou Aliou Sow Mamadou Aliou Sow seetlu ko Mamadou Aliou Sow Mamadou Aliou Sow Mamadou Aliou Sow génne bu ma laal suuf bu tànkee laal suuf bu ma laal suuf bu ma laal suuf bu ma laal suuf waaw génn xëcc leen làmmiñ xëcc leen làmmiñ xëcc xëcc xëcc leen làmmiñ xëcc leen làmmiñ xëcc leen làmmiñ làmmiñ làmmiñ làmmiñ làmmiñ làmmiñ bi képp leen ak bëñ yi képp leen ko bës képp leen ak bëñ làmmiñ képp leen ak bëñ képp leen ak bëñ képp leen ak bëñ làmmiñ bi boo leen ak bëñ ngeen képp ngeen képp ngeen képp képp képp képp képp képp bu leen daggal képp rek képp. Thierno dootoo ko defati baal ma. boole leen ñaari bëñ ngeen mu bës ñaari bëñ bëñ bëñ bëñ bëñ bëñ ñaari bëñ bu leen dagg làmmiñ génne leen làmmiñ bi foofu làmmiñ bëñ laa bëgg ngeen képp képpale ñaari bëñ ñaari bëñ képpale ñaari bës ñaari gémmiñ ubbi leen gémmiñ gémmiñ ubbi leen gémmiñ ubbi leen ubbi leen écarté leen gémmiñ génne leen bëñ bëñ bëñ na mel ni luy génn bëñ bëñ na mel ni luy génn bëñ na mel ni luy génn na mel ni luy génn bëñ bëñ na mel ni luy génn bëñ na mel ni luy génn na mel na mel non day soxor soxor day am doole ñu ñëwoon doole parce que instant bi ay morom yu jinne ñoo koy def xam nga man laaluma ko ah, ah. jinne bi xale bu jigéen moom jinne bi mu dugg jinne bu ko dugg maas maas gémmiñ bi Ouma gémmiñ gémmiñ gémmiñ gémmiñ gémmiñ maas leen gémmiñ bi Ouma maas leen gémmiñ maas leen maas leen bi Ouma jëleen ay kaabu Ouma ngeen teg ci gémmiñ bi maas maas leen gémmiñ gi maas leen ba gémmiñ bi Ouma gémmiñ gi maas leen maas leen gémmiñ maas leen maas maas gémmiñ maas leen gémmiñ kuura kuura kuura géej maas leen gémmiñ maas leen gémmiñ maas leen gémmiñ maas leen gémmiñ maas leen gémmiñ maas leen jëli maas leen jëli maas maas maas maas maas maas maas maas leen jëli buura buura dem maas leen jëli buura maas leen jëli buura maas leen jëli def leen ci 500000 volts 500000 volts 500000 volts 500000 volts

kii la lii jinne bi laay jëflante bu nit ki te moom la amul benn problème waaye nag jinne bi lay jëflante pour ngeen comprendre loolu laalu ma ko jegew ma ko maa ngi ko maa ngi duma jinne bi te laalu ma ko na tuuti na tuuti na tuuti bu leen ko bàyyi ma mooy na tuuti na tuuti na tuuti na tuuti na jóg na jóg na jóg na jóg na jóg taxaw yëkkati leen ko mu jóg taxaw na jóg jóg jóg jóg jóg jóg jóg jóg na jóg taxaw zëkk leen ko mu jóg mu jóg sonn nga ah sonn nga ah dafa jeexal tàkk condition zéro lu jóg yëkkati leen ko mu jóg taxaw yëkkati leen ko mu jóg taxaw lu jóg na taxaw jóg jóg jóg jóg jóg tànk yi def leen ko laabo tànk yi lafañ nee leen def leen ko laabo handicapé handicapé leen tànk yi handicapé leen tànk yi handicapé leen tànk yi handicapé tànk yi tànk yi la handicapé tànk yi la handicapé indi kafe tànk na indi kafe paralysé wu tànk ñaari tànk na paralysé na indi kafe tànk na indi kafe na indi kafe na paralysé paralysé wu tànk na indi kafe na indi kafe na indi kafe na indi kafe paralysé tànk na indi kafe na indi kafe indi kafe indi kafe na paralysé paralysé indi kafe na indi kafe tànk tànk na indi kafe handicapé, AVC, AVC, AVC, AVC, AVC, AVC, handicapé, mais ñu jox na dox handicapé, na handicapé, na handicapé, na handicapé, na handicapé, na handicapé, na handicapé, na handicapé, jine na dox handicapé, na handicapé, handicapé, na handicapé, na laal, na laal, na laal, na laal, na laal, laal, laal laaga laaga handicapé na handicapé na handicapé handicapé na handicapé na handicapé na handicapé na handicapé na handicapé na laaga na laaga handicapé handicapé toog leen ci tànk yi toog leen ci tànk yi na handicapé toog leen ci tànk yi toog leen ci tànk yi jonkoon leen ci tànk yi na handicapé laaga laaga laaga laaga laaga laaga laaga na jóg bu mu toog bu mu laal bu mu laal suuf waaw noonu na seggee noonu na doxee noonu bu mu sikki tee leen ba du mën a sikki tee leen ba du mën a sikki tee leen yaxu diggi na doxee noonu na dem na dox na dem na kaaj yaxu diggi bu mu sikki tëj leen yaxu il faut que ñu def loolu santal te ñu leen waxoon liggéey bu mu si lu mel ni man bu am ñaar téeméeri at na indi capital na indi capital indi capital indi capital laago laago laago laago laago na yuur def leen ko mu yuur mu yuur def leen ko mu yuur mu yuur na yuur na nekk yuur you

day yuut yuut handicapé mooy yuut am ñu gis nit dox mu mel ni fekk dañ ko koo def fekk ay jinne ñoo ko dugg def ko ni gis ngeen jinne lu mu mënul am parfois yéen dañuy ah, ay jinne lañ ko booleel wala ay jinne ñoo ko dugg yàq avenir am gis ngeen gis ngeen boobu ba tey moo ngi gis ngeen lii yëpp damay wan ñi xam-xam ni am na fi lu ñu bëgg a def def waaw xanaa lu ñu bañ a waaye lu ñu nam lu ñu nam ma def gis ngeen ko instant bi ko lan laa waxoon ah waaye yëpp dañuy jàngale rek dañuy jàngale woon ñi ñu bëri ñoom ci mbedd yi dañ koy def wala diine dugg leen di nga ko saa bi yuut bi day ñëw gis nga mu ne nay yuut yuut yuut bi yàlla daf leen may jinne yàlla daf ko may kattan ba lu mu bëgg ñu def waaw gis nga ko ay sant yuut bi gis ngeen gis ngeen <laughs> gis ngeen ñuul ñuul ñuul ñuul ñuul bokkul si ngeen chaque jour ñu wane lu bees wan pour ngeen xam yàlla moo mën a maye yàlla may ñu xam-xam macha allah dañu sant suñu borom bu baax gis ngeen ko ñuul bi du arrêté kan kaw mën a arrêté waaw waaw bu ko sa arrêté ngeen ngeen ñuul léegi ñun dina arrêté gone yi handicapé bi na dañ ñun ñu arrêté handicapé bi na dañ bàyyi leen yaram bi bàyyi leen yaram bi bàyyi leen yaram bi bàyyi leen yaram bi ndigg li ndigg li na delluwaat place am kuur karaj na delluwaat normal normal normal bàyyi leen yaram bi dindi leen ngeen def yaram bi handicapé bi na dañ li handicapé bi dañ li handicapé bi na dañ na normal la na na normal la cocc mu nekkaat cocc yiw bi mu denc mu nekkaat cocc mu nekkaat cocc ma doxaat cocc cocc cocc mu nekkaat cocc. ndeysaan ndeysaan man mënu wax sax mbooloo waaye dinaa wax parce que dama kontaan bu may pendant des années bu ma ñii ngi sama rakk la mais xam na li may wax man mënu ma woon tëdd sama néeg bëccëg ma nelaw bu ma tëddee damay sonn parce que amul matin midi soir day ñëw si man te fii laa nelawee fii laa nelawee guddi te lu ma daj lépp man fayuma ko Thierno wallaahi laazim fayuma ko bu doon xaalis moo may faj ma xam ni kon du ma wér mais ba ma ko woowee ne nga cer na faj ma ngir jëmmi sëñ Touba dana ma soxna si bu samdee nga ñëw ba ma ko woowee daf ne ma ñëwal mu faj ma boobu ba ma nekk si kër gi di lekk di naan di fóor sama ay yére yëpp Thierno yàlla na sëriñ Touba jàppale xawalahi la azim doom aadama yi yal na la ko gis ngeen ko jigéen bu tey la sedd mais gis nga bu jibee ñëwee ci moom day changé macha allah kontaan nañ bu baax ñun lañu fi nekkee pour jàppale jaamu yàlla yi macha allah gis ngeen ko mbàkkee la jógee jinne bi sonaloon na ko sonal waa këram jinne bi dem na ba yàq liggéeyu papam pour lan pour papam bañ ko yóbbu mu faj bunda ko keroog war na fi lu garaaw nee na kii ba mu koy dugg jamono jooju papam mu ngi liggéey dama fexe ba boleke liggéeyu bi sax pour papam bañ ko yóbbu mu faj xam nga ne jinne dafa garaaw papam ñoo confirmé loolu alhamdulilah rabbil alamin yàlla def na jinne yi nekkoon ci moom ñëpp ndeysaan génne nañ leen ñoo ngi fi ak man sant yàlla ñun sant nañ suñu borom ba ba mu jógee Mbàkke ñëw fi am yaakaar ci ñun yàlla dimbali nañu ba li nekkoon ci moom yëpp instant bi suñuy taalibe lañu loolu rek dafa foor moom di ko ñaanal jàmm xéwal ak rakam macha allah gis ngeen ko moom ngeen di gis ci yi noonu macha allah du moom du sago parce que jinne moom macha allah yàlla rek moo lay dimbali mais pour nga rëcc leen problème la mais léegi alhamdulilah rabbil alamin te jinne du dugg. wala kaana comme ni mu leen ko waxee jinne képp ku mu dugg dafa am lu nekk ci yow dafa am xam-xam bu nekk ci yow te moom boo xoolee maamam yëpp ay borom xam-xam la ñu woon macha allah moom it borom bopp la jinne yi loolu lañu gis moo tax ñu dugg ko di ko manipuler mais alhamdulilah rabbil alamin yàlla def na jinne yooyu yëpp ndeysaan léegi samay taalibe lañu moom instant bi bés ni ki tey dafa libre macha allah am na jàmm kon dañuy sant suñu macha allah gis nga rakkam tamit ñëw na rakkam tamit dafa am beneen toppoon ba keroog mu woo ma téléphone jinne bi di ma menacer uldu taaya mais yàlla na bu mu ñëwee fii ma defal bagage jinne boobu tuubal mais am na benn jinne bu des na jinne boobu paa la dafa dafa ngorom rakk ji léegi nag rek ñu génnee kooku après mais laal la moom bés ni ci tey libre na ndax yëpp dañ allah kon di sant suñu rek di leen ñaanal jàmm ak yéen allah gis ngeen lu mu wax leer na Mbàkke la jóge rakkam a ngi nii macha allah bu gars yi jógee di ak leer naan day fay nit ñi ñuy daanu ak yooyu te defe naa ñoom ñoom may fay macha allah c'est que Sénégal yi dafa am lu soxor iñaan moo tax du ñu dem yàlla lu mu defal Thierno Moule Sow lu soxor moo koy jëlee ak iñaan parce que calculer sànq am na ci nit moo woo Kolda la nekk maa ngi yor téléphone bi fii mu woo ma ma koy duma fu mu ne ci Kolda te maa ngi xanaa loolu kenn du ne Thierno dafa fay kooku tamit te yaa ngi ñëw fii di daanu kon dañuy sant suñu borom maanaam nangul yàlla mooy maye yàlla su mayee nit li ko yàlla may nga ànd ak moom mais boo giñaanee boo ko soxoree maanaam da ngay sa bopp waaw macha allah. su nga Thierno. waaw. ñii bu kan yaay wax ni. ñii. kan yaay wax ni. yow kan yaay wax. àdduna bi yëpp tas kenn wet kon nii lépp tontoo ci damay gis te vidéo daf leen ko jaratu ko jaratu ko yaa ngi def preuve mu ne dul wet si kaw suuf àdduna nga def dina fi def ku ko fi def tontu ma ah man de gisoo ko ah, ko juru tontu nit ñi dèjà mais yow kan yaay wax waa jinne la jinne yi wax ni xam mu nekk nii man jinne yi instant bi ñoo may défense ñoo may xeexa te man jinne yi may xeexal sax ñoom ñëwuñu fi jinne yi nga xamante ne ñoom may xeexal excellent bi gis ngeen ko instant bi jinne la kon moo ngi noonu macha allah dañuy sant yàlla sénégalais moo tax du dem maanaam du dem du bàyyi ku dem waaye dañuy dañu seen bopp rek ndax man macha allah suñu borom moo def ci man lii sama yaay Ajaratu Mariama Kamara mënu ko dindi suma papa Mamadou Aliou Sow mënu ko dindi kenn mënu ko dindi suñu borom moo ko namm ci man man sax xaw ma woon suñu borom moo ci man dama ko accepté nangu ko calcul yi fi jaar bari ne lool waaye tey ñi bëgg ñëwaat fii dañoo bari Thierno Moule Sow ku ko am téye ku ko ñàkk uti waaw waaw man ku ma am téye ma soo ma ñàkkee uti ma suñu borom moo def loolu waaw man maa ngi ñaari tool yi mu ne waaw parce que li ngay gis ci man doo ko gis ci kenn suñu borom mooy mooy mooy nangu ci nit suñu borom mooy nangu bu yonente doon wàcc man yonente laay doon parce que lu ma yàlla defal actuellement su yonente doon wàcc ci na bi xam nga yàlla dafa ne yonente yàlla Muhammad salaa moo tëj mais ginnaaw yonente bi dina wàcc ay waliw ay borom xam-xam ay rubbu zaman ay missionnaire maanaam dañuy doon yonente maanaam du ñu yor programme yonente waaye dañuy maanaam dañuy yor xam-xam yu garaaw gis nga yonente yàlla Suleymaan yi lu ko yàlla joxoon loolu la ma yàlla jox yàlla jox na ma suñu borom su dee ne léegi damay toog ji ne di ma woo ay téléphone di ma woo ay whatsapp di ma envoyé ay vocal loolu mbokk yi naa ne c'est grave dañuy sant suñu borom kon di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jàkkaarloo jinne wala bi ñu daal di koy defal bagage waaw